Daba ah, waaw mais ginnaaw bin ñu sant yàlla julli ci yonent bi bon di ko ñaanal yàlla rek di wax ni moom nit ku baax la quoi. Mhm. nit koo xamante ni ku xam boppam la nit koo xamante ni kenn xamewu ko dara lu dul woon liggéey ak bëgg njabootam ak jàppale njabootam. moom bu jigéen bi bu mu koy may mën na koo nijaayale te mën ak moom am na côté boo xam ne xaw nañ faa daje parce que mbokk la mais daal daba daal nit ku baax la nit ku bëgg boppam la ku bëgg liggéey la ku am personnalité la comme le Cheikh wax. ci biir li nga xam ne moom la ñu yàlla boole woon ñu bokk ko muy jànqeen jaba nekk nekkul woon benn élément bu simple ci biir parce que dafa am lu mu fa lu mu fa téye woon waaw parce que boo xoolee da nga naan jigéen ñi ñoom ñëpp presque moo nekkoon seen yaay bu benn détail amee wala dara sax mooy dajale femmes yi waxtaan ak ñoom bon. bu affaire bi draayee mu tegal lépp ci kaw raay bi affaire yi avancé ko amoon na benn rôle bu important ci biir affaire donc tey jii nii yàlla def na lu ko neex te bis la boo xam ne kenn ku nekk na ko xaar <laughs> ndax kenn ko ci nekk am nga sa wàll mu jege wala mu sori moo am mais daal actuellement li ñu ko deseel mooy di ko ñaanal yàlla yàlla jéggal ko yërëm ko te fa mu nekk nekk noflaay ci moom ci kàttu yàlla. di non daba daba moom daba moom ñoo ñoo ñoo dundandoo daal. Mm-hmm. ñoo ñoo dundandoo ñoo bokk lépp. man li ma gënoon a intéressé ci moom ca te loolu moo ngi day siin ñoo ko bokk mooy nit ku dëgg la nit ku dëgg la mm-hmm. du wax si ginnaaw nit su benn affaire amee wala dara ñu war koo wax publiquement lay taxaw wax li mu war wax te loolu jafale la ci jamono ji toll mën nga nekk nit mu wax dara sa kanam loo xam ne gëmu ko du bokk ak li muy wax sa ginnaaw mm-hmm. mais moom du wax si ginnaaw nit te loolu jikko boobu même laa gis si si ndey siin quoi waaw loolu moom. ah waaw moom loolu loolu loolu ñun lépp lu ñuy def ñun tàggat nañu loolu ci biir groupe bi nekk lépp lu ñuy def ba heure julli jotee soxlaatuñu loolu waaw lépp luñ nekk bu julli jotee soxlaatuñ loolu bañ jox yàlla lim moom ba pare soog a nekkaat ci ci kii xam nga kon mun ñoo guddal daal dañuy gàttal mais daal na ko ñëpp ñaanal yàlla. salaamaaleykum ñu dem comme rek euh, li ñu wax ni bu yàlla ñëwee ak mbiram. dangay naan inna lillahi wa inna ilayhi maa ngi nii man Cheikh Seck maa ngi ànd ak ab Moussa Seck Serigne Ngagne ngi nii ñoomin Ndeye Sine Sall ak ñoomin ñoom ñëpp ñu nga fële macha allah waa bisu bi rek bisu njàll la euh, ndax roqe dafa bokk ñi sas jànqeen bi may créé jànqeen production c'est la première à part Moussa Seck mii <laughs> nga xam ne sama doom la maag baayam ñu bokk ndey ak baay à part Moussa Seck c'est la deuxième personne ak kii ci laa waxtaan ci lu jëm ci Diankhène production kon ça veut dire Rokhaya Rokhaya Daba Soumaré moom moo fondé Diankhène tey nag bisu naqar la ndax dañoo amoon élément boo xamante ni waxuma sax en tant qu'artiste mais ndey la woon ci biir Diankhène ndax xale yi moo leen magoon ndey la woon taxaw nag taxawaayu ndey lu mu gis lu nar a yàq mu wax ca lu mu war a dox mu dox ko lu mu war a def mu def ko noonu lañ dunde pendant presque trente ans maanaam nekkuñu ay comédiens yu ànd mais ay ñu bokk ndey ak baay ñu ànd mais moom Daba sumaaree nag ndey la woon ci biir troupe bi ñëpp nag jox ko ciru ndey moom boobu loolu nekkoon chance am man sax yaboon nañ mais mais roqee kenn su ko yeb tey nag bis bii day ne bis boo xam ne dañ koy ñaan yàlla rek loolu lañ dese ndax euh, yàlla mooy ñëw ak mbiram dañ koy ñaan yàlla yàlla bàmmeel mi noflaayam yàlla na ko yàlla jéggal li mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla barkeel alhamdulilah. ci biir feebar bi ana yan kàddu ngeen ngeen mujjee euh, ñëw nañ seet si ko waaw am na li ma ci gën a marqué bi ñu koy seet si booba roqee feebar na mais li ma jaaxal bi ñu ñëwee def délégation war a yendu si ci moom jour boobu roqee ci ci moo tax bu la neen nit nitee garabam hmm. keroog laa ko gëm roqee dafa wér. waa këram ni roqee géej naa añ tey añ na roqee géej naa ree mais tey ree na ba bu ñu nekk ci mbedd mi sax dañuy dégg baatam muy ree keroog li ma ci la doxe woon na jamono jooju bi mu fi ñëwee dox nag am son son évolution di gën a positif ba yàlla ñëw tey mais ñun sentir nañu ne moment boobu ba ni mu demee nii dafa wéroon mm. tey loolu moo nit ñi tey garab mm-hmm. sant yàlla jërëjëf sëñ nga maa ngi leen di jaar yéen ñëpp di leen jaale li ñu bokk Daba sunu sœur la voyage bi mu mujjee def Paris man maa ko invité Paris muy la Ramadan à Paris ñu ko daan def ay ñoom Diouf baa Baye Ili demoon ci euh, ak ku ñaan ba Diouf Farimbe bi joué dina ma neex waaw man mii maa ko invité woon Paris mu ñëw fa def voyage def plus de une semaine def le Ramadan à Paris sama sœur la euh, booy seet sa théâtre yi ñu daan def man maa daal nekk jëkkëram lu bari te man na maa jur waaw mu nekk nit ku baax. Mhm. yàlla na yàlla yërëm ko yàlla yokk leeram mhm. jër euh, tey bi mu bi mu génnee àdduna euh, ana yan kàddu yu mujj yoo xam ne partagé yoo xam ne bàyyil waaw daba moom moom ma mujjee woo téléphone war na mat 15 jours toog naa ba mu yàgg mu woo ma euh, xaw ma sax moo may woo fekkente numéro boobu dama changé téléphone. Mhm. ma ne ko kan la mu ne man la Daba Soumaré eh woo ma damaa bëgg nga ñu àndaat dem Paris. lii daal la ma mujjee wax dans 15 jours ma ne ko daba dama am fu ma nekk naa la rappelé rappelé wu ma ba bërki démb ba jour jour bi mu gaañoo la sama xel di nekk ci Daba Soumaré ñu tàggee ma ko ci jour boobu mel ni dafa nekk loo xam ne daal collection lu yàlla dogal la mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf